Galabul Fadé te Seex Bamba ci dunya naka do ba daqal galam sandaane naka sa boqal di jàkka ndeem raw na say gët mi ngi lay gis ta daaw leen seetaane naka sa boqal di jàkka ndeem raw na say gët mi ngi lay gis

sidra balaga dem ci yàlla am keer keeraan wuutu si yoon Mbàkke Seex na Bamba wuutu si yoon Mbàkke Seex na Bamba wuutu si yoon Mbàkke Seex na Bamba wuutu si yoon Mbàkke Seex na Bamba waaye toogaa jéem a jóg leen bëgg sëriñ si Aliou Diouf la mbay toogaa jéem a jóg leen الزامي نيرلا بل خلفاء نن بجرمي يخالون يا قدك سنتوا الحكمان يا قدك وهم رب تبا يا بداوي nan ba do tudd gaaw yaa we dem loo Alhaji Malick di nga fi yu di an bañ Mbàkke booba luy xaw soo yaa di seen sultaan yaa di Malick di Malick Mbàkke di an bañ booba luy xaw Cheikh Ahmadou doon ngay mbooj ci gaayu baax yi fi nekkoon yaay jonay Seex Ahmadu Tijaane fi nekkoon bala ay ka doon ngay mboy ci guddi yoo ki xalil ba yaay jonay Abdul Xaadir abdal don ngay mbool xutbul hamdil ya daan don ngay mbool bari o adik man baji xutbul afi dan don ngay mbool don ngay bool ci Mbacké Hakim Soobe yaa di lamp bidaane ak sodaane aji Mbacké Hakim Soobe yaa di lamp bidaane ak sodaane yaa di waa ngeen yàlla ya dul fer Mbacké ku la daataan Jangan, jangan, jangan. Cuma gula dadan Hatinya gak ujarana Dadan Hatinya gak ujarana Cuma gula dadan راتي راتي خليا نتربو مبكي بدنا كنيا أدنا يم نصرا أنبيا شيخ أحمد يا نتربو يا نتربو بدنا كنيا ربنا يا بيجي قلبك كان عندي هجبك لا jubluwa aku dafa ba axaane yang wamat wamat murid inu andan pakai yang beriak nu ànda ya dinga ya dalal sa tënk sotti nu say may adige juga negi murodaane ko dunura yalla yalla Cheikh Ibra Faati ci say may ya ko jiital Sikibra Fadi Sikibra Fadi Sikibra Fadi Nabi Yalla Sikh Ibra Fadi Kisay May Bako Jidan Kutu Fidi Wana Koram Daro Koram Daro yàddu yàlla ibra faati ci say may daa ko jiite muy xut fi diwaane borom daaru borom daaru daaru borom daaru daaru yàddu yàlla ibra faati ci say may daa ko jiite قطب في ديوانه هذا بلغ وأنت برجع بدل دنيا دارو جوال جوال أحمد بن سعيد عندك عمري دوال Bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, ko wal yoon waa jox gamu naane maam Cheikh Rafal yaa ko wal yoon waa bake yaa saxal ko abudu daarul alim jox ko mbootam kuy jàng fi alxuraan sa ko abudu daarul yaa jafal rabbi diina gaaya fa tuuba ci daaru salaam ak maana ci daaru salaam ak maana जारी जला में Sitari Dalani Hakim gila Daaru Salaam ak gila Tuuba baba doodi ak di kabbi janaane gila Tuuba Tuuba yaa ma seexal tax may ma fatha ba may way yaa ma tee doon te dox dimbal di sam sampaan Mbakke yaa ma tee ga du yàgg dàgg yanu dar Mbakke yaa ma tee ga dumbal ka tey متي بابا يا ديجي بواجو لبيرن كل قوم كرم الخران واجو لبيرن قوم جرجو جرجو شيخ بابا يا متى عندك Mbakke jërëjëf Seex Bamba yaa mata àndal Mbakke jërëjëf Seex Bamba yaa mata àndal Mbakke jërëjëf wax jërëjëf seen ndam Seex Bamba yaa mata wax jërëjëf seen ndam ba du taxaw ca kaw wax ko du leen taxaw wax jërëjëf seen ndam du leen sant seen ndam waay Seex Bamba yaa mata àndal Mbakke jërëjëf Seex Bamba yaa mata àndal mata àndal Mbàkke jërëjëf Seexu Bamba yaa mata àndal Mbàkke jërëjëf Seexu Bamba yaa mata àndal am

day jib waa ibu day su booba suñu rahima wa al sëriñ day jël borom Tuuba am jaxra faal suñu rahima wa al baba su day jib waa ibu day jib su booba suñu rahima wa al sëriñ day jël رحمك رحمك رحمة لباس بدي جبي مواعب بدي جب سبابا رحمة السيد الجرمتوبا بدل ببدا البي بصر بسيخنا رحمة لباس بدي جبي مواعب بدي سبابا Ibrahim ada Allah Orang tua Cara masyarakat Sesuaikan Ibrahim ada Allah Lampu bahas mudayin Awak ibu dayin semua bah Rahim ada Allah Orang tua magal waa suba day jib waa ibo day jib suba ba Cheikh Ibrahim magal ne dal jano borom Tuuba arama Cheikh Rama Rahim magal topp ba suba day jib ma waa ibo day jib suba ba رحم بعزيز فردوبا جرم ذرفا رحم بعال تبوا سبدي إبدي إبدي إبابا رحم بعزيز فردوبا احمد ابو بكر جبرا احمد عدل فرمت جبرا عبد درم احمد عدل فرمت شيخ ابرا عبد درم ابراهيم مرة عدل فرمت Illaahi ma faal fi dal jaan borom Tuuba jawral la jaan rafa Illaahi ma faal fi dal jaan borom Tuuba jawral la jaan rafa jawral la jaan Cheikh rafa jawral la jaan Cheikh rafa Illaahi ma faal fi dal jaan borom jaara bay faal bu mag ba ko kuy bay faal ju doon màgge ko ni del jano faram tuuba Kim Allah al-Nidal al-Haram Tuba Ramadhan Ramadhan Ramadhan Ramadhan Ramadhan ma baal dani borom Tuuba ba jara ma أجني بالدم ورمت ci mab al nani ما يفعل بالشيخ إبراهيم مرة الأمين ورمت أرى ما شيخ رفا رحم مرة الأمين ورمت رحم مرة الأمين ورمت ما فعلت عند الجنة ورم توبا يا رب يا رفاعك في قبرك ما فعلت عند الجنة ورم توبا ما يعرف دمك الجنة